ndeysaan la wasaare en tout cas daal moom it maa jaaxal maa jaaxal Thiatou Malaw ngi noonu saan bi mu bi mu mujj fii Ibou bu Kër Mbaye Fall moo ko daanoo waaye Pape Ndiago wala nga ne Boy Ndiago l'essentiel lépp xeetu Ndiago la lépp ci xeetu Ndiago la lépp Pape Ndiago Papa Ndiago Boy Ndiago lépp xeetu Ndiago la waa xeexu Ndiago du. am meew dama cere cere cere gaar li xanaa cere lay àndal cere gaar. gar gar dama jox meew garo gar dama jox meew dama koy boole cere oh ndeysaan garo gar dama jox meew dama koy boole cere cere cere meew meew mi cere laa koy bo arbitre sifflé na caatu maalaw at Pape Ndiago ndeysaan ca caatu maalaw mooy woon ginnaaw waaye Pape Ndiago lañ jàkkaarloo lii de ndox la moom Caatu Malaw at Pape Ndiago ndax soo xoolee Caatu Malaw nee na ko xeexu Ndiago dina jeex ci tey mu ne ko keeku Ndiago du jeeg mu ne ko bii du jeeg eh gis nga la may wax léegi nii si Ndiago bi baax na waaye waaye Caatu Malaw Caatu Malaw ci kanam la jóge gauche droite box mais Ndiago bii. njaago bi de uta naag njaago yi nekk suñ njaago yi nekk suñ koñ ñoom ay français lañ duñ njaago njaago njaago eh, njaago njaago ñam oh, goos <laughs> caatu hmm. <laughs> maalaw at njaago njaago wala nga ne njaago la ak caatu maalaw wura taj a ginde wura saan jàppante nañ Caatu Malaw at Pape Ndiago ñaari xale yaa ngi noonu si géew saan ñaari xale yaa ngi noonu si géew xale yaa ngi noonu si géew gi ndeysaan Caatu Malaw takk na ko Pape Ndiago takk na ko Thiatou Malaw ràcc na da takk mu ràcc laa ilaaha illallah Thiatou Malaw daan na ko Thiatou Malaw daan na laa ilaaha illallah daw takk mu dox ñaari paa moom Thiatou Malaw daw gestu ko Thiatou Malaw il est le Thiatou Malaw il est le maire Thiatou Malaw il est le maire de dafa juumoon mi fi mujj si diggante ak Ibou bu Kër Mbaye Fall. tey mu ñëw di fi boppam moom Thiatou Malaw. xale bii day wàcc adresse Senghor. dafa màggee si keppaaru Paul Maurice. may wax gis nga ñu ñëw ñëwal ñu ci làmb gis nga làmb ji tey dañoo def tekk ak tey rek. waaw am lu ñu yeb moo waral ñu indi lii mais waaw te lamb ñun dañ cee bokk lu waral tey jii maam lu ma métti maanaam lamb Grand Yoff mooy am ay champion mais dañoo nekk ci ay tolof tolof moo waral tey jii mu demee nii mais ñun dañoo mën bëre mën bokk ci lamb di wax ni lii du dara waaw kii nii du ma ak di sant waa Grand Yoff bu baax waaw noonu la demee mais kii man maa ko may man mi li ma def ci làmb bari na ci combat bari na def naa neuf combat bi muy dix kon na kii nii tey jii bu ñu làmb boolee man maa koy may sens mais làmb dama cee bokk pour gars yi bàyyi ko xel média yi jël nii di leen xamal ni man maalaw doomu grand bi dama bokk ci làmb di wax ne lii lii du dara nag le retour de maalaw beneen maalaw mooy ñëwaat waaw noonu la demee di di am kontaan si yéen bu baax a baax a baax waaw di wax ne yéen ñëpp maa ngi am mbégte bu a baax ma départ fan nga jëm fan nga jëm waaw fi ma jëm bëri na samay naataango bëri nañ su mel ne kan ak kan bëri na xam nga rek man dama nekk sama estaf waaw ñu may teg ci ma nekk gone gu ndaw war a yegg fenn si làmb kon nag maanaam saa su ne rek damay toog di déglu samay entourage luñ ma luñ ma wax rek ma doxalee noonu suñu ma ne fii la rek man. li ngay wax waa groupe a bokk la demee di leen sant bu baax bi walaay kon am mbégte kontaan di wax ne lii du dara ñun dañoo bokk ci làmb amaana li ci raw li ci kanam mooy dàq lii te bu yeboo ngeen bàyyi ñu xel di ñaanal télé bi affaire yi jëm ca kaw ca kanam waaw di wax ne lii du dara nag am mbégte kontaan di la jaajëf